yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu juróom benneelu njàngale mi yàlla nanguwul saraxu kayin nanu bamtu nettali bi weesu benn yàlla wax na aadama ne su lekkee ci doomu garabu xam lu baax ak lu bon gi ci diggu tool bi kon dina dee naka la kàddug yàlla doonee dëgg yàq nañu seen kóllëre gi nekkoon ci seen diggante ak yàlla gannaaw gi seeni yaram dee nañu ñaar lu tax Adama ak Awa mënuñu woon dellu ci toolu àjjana ndaxte dañu bàkkaar te yàlla mënul nekk ak bàkkaarkat yàlla tegoon na itam menn malaaka mu yara jaasi juy tàkk ci buntu toolu àjjana ñett jàmm ji woon ci diggante yàlla ak nit ki fan la mujje yàqu na ñeent lan la yàlla won aadama ak Awa bi mu leen wutalee yérey der won na leen ne moom dafa jub te deelee atte bàkkaar deretu mala tuuru na ñu jox aadama ak awa derbi ngir ñu fàttaliku seen bàkkaar te itam yàlla won aadama ak awa ne bëgg na leen ba léegi mbind mu sell mi nee na ci njëlbeen gi saar ñeent aaya ñett ba aaya juróom ñaar gannaaw ay jamono kayin jël ci li mu bay jébbal ko aji sax ji ngir màggal ko abel moom jébbal yi jëkk a juddu ci géttam te gën cee duuf aji sax ji nangul abel waaye nangulul kayin kayin nag daldi mer lool ba xar kanamam bi lëndëm aj sax ji ne kayin lu tax nga mer te lu tax saxar kanam lëndëm soo defee lu baax saxar kanam dina leer soo deful lu baax bàkkaar a ngi ci sa bunt dina tëru ni rab te di wut waaye nanga ko noot buleen fàtte ràññee melokaani yàlla yi ci nettali bi yàlla nanguwul saraxu kayin nettali bi mu ngi aju ci ñaari doomi aadama yi ak awa kenn ki mooy kayin gëmul woon yàlla keneen ki abel di ku gëm yàlla ganaaw bi yàlla génnee aadama ak awa toolu àjjana awa am doom ju góor ñu tuddee xale bi kayin gannaaw gi awa am jeneen doom ju góor ñu tuddee ko abel bi yàlla di sàkk aadama ak awa amuñu woon bàkkaar dañu matoon gannaaw loolu aadama ak awa bàkkaar bi kayin ak abel juddoo bàkkaarkat lañu woon ñoom jubawuñu woon ak yàlla ndaxte seeni waajur bàkkaarkat lañu woon te ñoom itam jubawuñu woon ak yàlla kayin ak abel juddoowuñu ci toolu ajjana bi xale yi màggee kayin baykat la woon waaye abel sàmm la woon aadama ak awa jàngal nañu seeni doom ñu jaamu yàlla daan nañu saraxe ngir jaamu yàlla benn bés kayin ak abel dem di jaamu yàlla abel saraxe am mbote loolu wone na ne abel xamoon na ne bakkaarkat la kayin saraxe ay meññeefu toolam yàlla nangu saraxu abel ndaxte abel ku gëmoon yàlla la waaye yàlla nanguwul saraxu kayin ndaxte kayin amul woon ngëm ci yàlla noonu kayin daldi mer lool yàlla artu kayin ngir mu jub waaye kayin dégluwul yàlla gannaaw gi bi kayin ak abel nekkee ca tool ya kayin daal di rey abal rakkam ganaa loolu yàlla laaj kayin ana sa rak kayin tontu toppatoo sama rakk ndax dafa di sama liggéey yàlla xamoon na ne kayin rey na rakkam noonu mu atte ko yàlla wax kayin ne toolam datul naat yàlla wax kayin itam ne dootul toog benn bërëb waaye dina wëndeelu ci kaw suuf yàlla def na ab màndarga ci kayin ngir kenn du ko rey kayin jóge kër baayam takk jabar am ay doom kayin itam moo tabax dëkk bi jëkk ci àddina aadama ak awa am jeneen doom ngir mu wutu abel ñu tuddee ko set gannaaw gi ñu am ay doom yu bare fii la nettali bi yem am na ay laaj benn lu tax nit ñépp judduwaale bàkkaar ndaxte Adama mooy sunu maam bi Adama ak Awa bàkkaare sunu kóllëre ak yàlla dafa tas itam nun itam judduwuñu ci toolu àjjana ñaar lu tax yàlla nangu saraxeb Abel ndaxte abel dafa tuur deretu mala loolu wone na ne xam na ne bàkkaarkat la te yelloon na dee abel gëmoon na ne yàlla rek moo ko mën a musal gëmoon na itam ne yàlla dina yónni ab musalkat ñett lu tax yàlla nanguwul saraxu kayin ndaxte kayin bëggoon na jaamu yàlla ni mu ko neexee moom ci boppam gëmul woon ne yàlla rek moo koy musal te itam deful sarax bi yàlla santaane ñent lu tax kayin meroon kayin dafa añaane abel ndax li yàlla nangu saraxu abel kayin merewoon na abel ndax añaan kayin merewoon na yàlla itam juróom lan la yàlla wax kayin yàlla artu na kayin ndax li kayin mer te wax na ko mu tub juróom benn lan la kayin def kayin bañ na déggal yàlla kayin gàntu na ndimbalug yàlla kayin baaluwul yàlla bàkkaaram gannaaw gi rey na rakkam juróom lu tax yàlla reyul kayin gannaaw bi mu reyee rakkam ndaxte yàlla am na cofeel ak yërmande juróom ñett naka la yàlla attee kayin yàlla wax na kayin ne toolam dootul naat dina wëndeelu ci kaw suuf juróom ñeent lan lanu nettali bi woon ci añaan bàkkaar la mën na tax nu def lu bon fukk ndax nit ñi dañuy añaan ba tey ji waaw fukk ak benn loolu lan la lañuy won ci nit ki nit ki bàkkaarkat la fukk ak ñaar kan moo tax nuy bàkkaar sunu bopp ndaxte bàkkaarkat lanu fukk ak ñett kan la ñuy tooñ sunu bàkkaare yàlla sunu boroom la ñuy tooñ ñu ngi tooñ itam nit ñi soo sàccee juru jàmbur tooñ nga ko bul fàtte ne tooñ nga yàlla itam ni woon bi kayin reye abel kayin tooñ na abel tooñ na yàlla itam bu nuy def lu bon ñu ngi bàkkaar ci kanamu yàlla yan melokaani yàlla ñoo feeñ ci nettali bi ak naka lañu ci feeñee yàlla dafa jub yàlla nangu na saraxu abel ndaxte abel gëm na yàlla abel wane na ne bakkaarkat la te yelloo na dee moo tax mu rey ab mala saraxe ko yàlla xam na lépp yàlla xamoon na ne kayin rey na abel laata mu koy laaj kayin ana sarak yàlla bëggul bàkkaar yàlla àcc na kayin ndax bàkkaaram yàlla lu mu diggee def ko set judd na ngir yàlla mën a def li mu diggee ci mbirum askanu aadama gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yàlla wax na kayin ne war nay def lu jub war na am ngëm itam ni abel yàlla bàyyiwul kenn rey kayin ab misaal ci njàngale mi ndax soo jëmbatee garabu niim dina meññ màngo déedéet doomu niim rekk lay meññ noonu la ak nit itam nit ki bakarkat la kon doomu nit ñi bàkkaarkat lañu itam noonu la woon ak kayin ak abel aadama ak awa bàkkaar nañu te yàq nañu kóllëre gi nekkoon seen diggante ak yàlla léegi kayin amul kóllëre digganteem ak yàlla te bàkkaar na itam fàttaliku leen ne bu car damee day wow car yi taq ci moom yépp dañuy wow itam noonu la ak nun itam beneen yoon dinañ waxtaan ci bi yàlla mëddee suuf si ak ndox